waaw ñun suñu teewaay ci bërëb bi mooy fas yéenee laxasaayu ngir ubbite jumaay Serigne Touba ji mu ñu defal ci taraanga ci Sénégal rawatina dakaaru mu fay ñetti guddi Dakaroom yaa lu murit mës a dégg ci sëñ Bamba mu naqari la tey ji sa xol sedd na ndax tar-tar bu metti buñ ko teg te lépp mu jaayante ko sunu borom ngir sunu nooflaay loolu mooy suñu teewaay ñun ñëpp. ñun de bi ñuy ñëwee eh, indaale nan ay xéewal téeméeri siwo yoo xamante ne fees naag bernde. ci euh, lu nit mën a jëfandikoo yëg sant sëriñ Touba ci ay beñe dugub ak mboq ak koko ak yu neex yoo xamante ne doom aadama bu ko ñam xam ne lii fas yéene nañu liggéey Serigne Touba. indi nañu euh, juróom fukki euh, sachet yi ndox ci société yoo xamante ne nii ci sunu biir la ci famille seeneen indi nañu ay satala ngir nit bala moo jaamu yàlla day sell loolu jëwrin jëwriñ na moo ko indi kon yàlla def na ñii fi toog ñëpp dajale na ay koppar ngir dem ziyaara ji euh, euh, sëñ bi ngir jàpp ci liggéey bi ngir ubbite jumaa ji ñu ngi fàggu tam ay basan di fàggu yoo xamante ne nii euh, bërëb bi dina ko soxla ak i muket danoo nar fas yéene laxasaayu ngir mën a liggéeyal Serigne Touba. daayira soxna jaaratulaayi seeneen dafa bëri ay commerçante yoo xamante ne danoo laxasaayu ngir liggéey dafa bëri ay ñoo xam ne ay chef d'entreprise lañu am ñoo xamante ne danoo yore seen liggéey di joxe addiya ngir bésub Serigne Touba bu ne ñu won ci suñu bopp liggéey bi nag la ñuy faram fàccee ndaxte bu fekkente ne Serigne Touba yàlla dafa ne gëm ma liggéeyal muy ñaari ponk ci jullit kon jullit bu ne war na koy mën a wax ci saa su ne buñ koy interview jullit bi dafa war a liggéey nañ leen jóg liggéey ngir mën a joxe addiya Sëñ Bamba ji sëriñ Touba kenn mënu koo fekk ci lenn te liggéey rek du la ko may.